une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV yal na fi yàgg lool te wér ah, di ngeen ma may dama taxaw foofu tuuti ndax xalifa bi suñu borom mooy suñu kilifa mooy suñu sëriñ mooy suñu waajur waaye nag dafa am lu yàlla def ci diggante bi ndax dañ maa fal maire 2009 ñu takkal ma drapeau bi ca suba sa ca Ndofane sëriñ bi ñëw gane si ñëw ñun waa Ndofane donc kilifa gi nga xam ne moom laa njëkk a teer en tant que maire sëñ Mountakha mii la loolu 2009 la ñuy dox di ànd ba ni ko sëñ Cheikh Abdou Latif waxe ñu utal ko fa makkaan ba décembre 2017 muy dem Poroxaan mu ñu woo ma ne ma sëñ Cheikh Abdou Latif woo ma ne ma sëñ bi nee na day ñëw ñaan ci makkaan bi nga ko jox mu ñëw ñaan fa lu yàgg yàgg yàgg waa dëkk ba yëpp a koy gis sax tey foofu la mujjee dem Poroxaan fa la jógee ñëw nekk xalif général des Mourides kon moom te xam na loolu am na boole bu ñu suñu borom boole kon suñu kilifa bu baax boobu dañuy ñaanaat yàlla yàggal ko fi loolu te may ko di nuyu porte parole yoon bi muy sëñ Bass Abdou Khadre di ko gërëm di ko sant taxawaayam di nuyu sëñ Ahmadou Maktar bi nga xam ne moom mooy xalifa Daaru Kudos di xalifa sëñ Modou Moustapha ah sëñ nag moom dem na Abdou Latif waaye dégg ngeen fi wax taxawaayam ci suñu wet yàgg na rafet na ginnaaw buñ ko nuyoo dañ koy gërëm di ko sant di nuyu ki nga xam ne moom mooy sëñ Cheikh bu kër sëñ Massamba dégg nañ waxam wax ju rafet lim fi wax ak lim ñu fi jàngal lépp moom itam ñu ngi koy nuyu nuyu bu gën a sell du ñuy waa wilaya bi ak fédération yi nga xam ne sëñ Moustapha Mbacke moo leen jiite di leen gërëm di leen sant ndax lii ñoom ñoo ko taxawal bu bés bii mën a am di nuyu njëbooti sëñ Touba yëpp bàyyiwuñu kenn suñu kilifa yooyu soxna yee sëriñ yeeg ñu ngi nuyu ñëpp euh, di nuyu itam délégation yi fi ñëw dégg nañ fi délégation yu bari ñoom ñëpp nañ xam ne ñu ngi leen di beral nuyu di nuyu monsieur le maire Abdou Mbacke Ndaw di rafetlu teewaayam di ko gërëm di ko sant ci taxaw bi mu taxaw ci projet bi ñu nekk di beral nuyoo itam ki nga xam ne mooy suñu kilifa ñun muy madame Seynabou Ndiogène Mbacké mu euh, soxna ci sëñ Thierno rafetlu nañ teewaayam xat na waaye bàyyi na lépp ñoo fekk seen ñu bés madame la présidente du conseil d'administration de GTS ñu ngi lay nuyu nuyu bu gën a rafet di gërëm di la sant sa teewaay di nuyu ki nekk sama càmmoñ nga xam ne conseil technique numéro un la bu secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire muy Seydina Ndiaye moom aussi nekk administrateur bu JATES donc bokk ci conseil d'administration bi rafetlu nañ sa teewaay jërëjëf ci li nga déplacé wu ñëw euh, mënoon naa njëkkee sax ci Mokhtar Sarr waaye protocole bi laa bëgg laa doxalee noonu rek Mactar Sarr suñu partenaire la suñu xarit la suñu am di jàmm tey mën naa ne ginnaaw waa sëñ waa wilaya yi organisé mën naa ne moom mi moo tax ma ñëw fi ndax suñu kuréel gi nga xam ne moom mooy GTS dafa signé ak kuréelam bi MNEL Capital benn protocole boo xam ne mooy wone suñu ànd ci li ñu bëgg a def kon sëñ Makhtar sa taxawaay ci mbir mi wax dëgg yàlla yéene eh, yooni sëñ Touba rek moo ci nekk sa yéene pour raay bi juwaat moo ci nekk nga am kóolite ci ñun ñu ànd signé li ñu signé ci tànk boobu lañ nekk moo tax tey ñu dajewaat kon sa taxawaay boobu yal na yàlla barkel ko di nuyu également ki nga xam ne moom mooy beneen conférencier bi te mu won ñu fi lu am solo defal ñu fi ay calcul yu am solo bi muy wax nag yi man bi ma calculer sax presque trois cent millions la ci nag yi nga xam ne ñaari lañ doon rey par bés boo ko calculer léegi ci valeur yi trois cent mille walla yu demee noonu kon sa waxtaan bi am na solo lool Euh, di nuyu ñu ngi jéggalu Serigne Moustapha Mbacke ibn Serigne Cheikh Gaynde Fat xam naa damaa yeblu ci ibn Serigne Cheikh Gaynde Fat ma waaye moom laa doon nuyu sax di ko gërëm di ko sant ci teewaayam di wax ne euh, taxawaayam ci kuréel yi dégg nañ ko yal na yàlla may ko wér yal na yàlla guddal fanam di nuyu itam sama délégation bi ma àndal muy waa GTS directeur yaa ngi fi ñoom itam bàyyi nañ seen lépp ñëw fi loolu itam rafetlu naa ko lool te am na itam représentant syndicat kër gi ñoom itam nee nañ bëgguñ liggéey bi ñu def ump leen seen secrétaire général teew na loolu aussi ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant am na délégation ñaari conseillers municipaux yi am ak man jóge ñoom itam dëkkandoo fa ñu ngi fii ci sàll samay am di jàmm yu dëkk Touba yu dëkk Mbàkke yu dëkk Daaru Thiès ñëpp ñëw nañ fekkee si bés bi yëf gudd na waaye loolu mooy Sénégal boo amee bés ñi la ko teewal bu leen bu ko xeeb kon képp ku fi ñëw daal xamal ne suñ la mënoon a tudd tudd la xamal ne rafetlu nañ sa teewaay gërëm nañ la sant di leen jottali nag suñu nuyooyu kilifa yu mag muy nuyu président de la république Macky Sall di nuyu suñu ministre muy Amadou Mansour Faye nga xam ne mooy ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement li mu yore ci la raay bi bokk waaye président nag raay boobu dafa jël benn secrétaire d'état dënk ko ko muy le ministre Mayacine Camara di maire Koungheul loolu day wone cër bi nga xam ne président Macky Sall jox na ko raay ndax bari na fi ministère yu amul secrétariat d'état kon daa bëgg ku ko ko téyal doxal ñooñu nuyoo yi yépp ñoom itam ñu ngi leen koy jébal ah fii nag defe naa ne bala ñoo xuus si waxtaan bi ah cheikh bi moom Cheikh Ahmadou Bamba defe naa liggéeyam ci réew mi liggéeyam ci Afrique ñëpp xam nañ ndax lim fi ji mooy xam-xam mooy nangoo liggéey li sëñ Mbàkke wax sànq ci raay bi wane na ko gëm yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu moo indi ñu nangoo def ci raay ba pour rek bagage yi mën a ñëw ñu tabax jumaa xam nga ne loolu moom liggéey bu am solo la bàyyi fi nag lu ne ci lu baax te lépp nag ci jàmm la ko jaarale bal tàkku naa loolu lu am solo kon loolu mënuñ koo ñàkk a wax ndax sëriñ bi moo tax lii yëpp am moo tax tey ñuy wax waxi raay ci diggante Diourbel ak Touba euh, tey nag li nga xam ne moom lañ ñu jox pour ñu wax ci ci tubaab di ko wax transport ferroviaire dans les réformes structurelles de l'économie mooy suñu koom-koom dañ ko nekk di ko tegal ay banqaas di ko càmbar koom-koom dafa yaatu tey nag ñu ne ñu ñun wàllu dem beeg dikk bi ak raay ban wàll la ci am moom boo duggee ci PSE plan Sénégal émergent wax nañ ci PSE boobu génnee li ñuy wax plan boo xam ne dañu war a fet suqaliwaat li nga xam ne moom mooy transport ferroviaire loolu nag defe naa ne solo da koy xayma rek ci euh, fi nga xam ne foofu la raay bi jaaro tey raay bi même bu doxul yegg na ba Ndar yegg na ba Kidira dem na ñëw na ba Touba gi dem na Linguère dem na Daar kon autoraay bi tey bu doon daw mën naa ne gox yooyu yëpp mën na fay waaye tey boo xaymaa fi nga xam ne moom mooy région yi nekk ci sant bi maanaam tey boo ne woon raay bi day dem ba day ñëw ba Touba dem Touba mu ngi bokk ci région Diourbel ñu ne day dem ba Tivaouane mu dem ci région Thiès ñu ne raay bi day dem ba ngin ngi neew jóge Dakar mu bokk ci région Fatick wala mu yegg ba Kaolack maanaam région yooyu boo leen boole ñoom rek presque 9 millions d'habitants la maanaam ëpp nañ sax xaaju population Sénégal kon tey raay bi train bi bu doon daw ñooñu ñëpp maanaam raay bi mën na leen a amal njëriñ bi ñu xaymaa itam gis nañ ne ci ci euh, population boobu presque cinq millions yi am nañu kattanu dem dikk presque mën nañ ne lu ëpp cinquante pour cent maanaam xayma la boo xam ne ñooñu tey soxla nañ dugg ci raay ndax du ñëppay tukki wala du ñëpp bu ñuy tukki itam mën nañoo jël otoraay loolu yaakaar naa lu am solo la ci li ñuy wax transport ferroviaire ndax nag boo waree ah dem itam da am ñoo war a yóbbu daa am ñoo xam ne ñoom nga war a yóbbu ndax raay duñ ko def pour yóbbu fukki nit ci gox wala téeméeri nit waaye boo xoolee population Sénégal mën nañ ne tey li nga xam ne mooy ñetteeli xaaj bi ci côté bii ñu nekkee ñoom ñëpp mën nañoo jël raay mu boole ci nag dëkk bii ñu nekk tey dëkk bu tedd bii di Touba moom itam te ñu koy dàkkantale léegi ñaareelu dëkk ci Sénégal ci population ci koom-koom population moom ëpp na benn million yi habitant kon xam nga tey buñ doon indi raay bi train bi ci Touba rek Touba ci boppam rek un million d'habitants kon xam nga muy dëkk bu am solo waxuma la nag boo jógee ndakaaru romb Thiès ñëw njaareem jóge fa ñëw fii nga xam ne mooy Touba boo boole jëlee ak boobu rek presque mat nañu 3 millions d'habitants beneen mbir boo xam ne dafa am solo muy événement bu mag ci Sénégal di événement bu mag ci Afrique ñun ñëpp ñu di ko xaar yal nañ ko fekkee jàmm muy màggali Touba màggal gi moom xayma nañ ne lu mot ñetti million ngi nit wala lu ko ëpp dina fiy daje ndax ñëpp xam nañ bu màggal jotee kenn du des ci yeneen dëkk yi ñëpp presque ñëpp ay déplacé wu ñëw ku mënta ñëw itam yaa ngi màggalee fa nga dëkk loolu yëpp tax nag vidéo bi ngeen seetaan sax président de la ma ki sàll ne nañ fexe ba autorail bi dawaat pour loolu nag mu ne dam day réformer li nga xam ne moom mooy kuréel yi yore loolu wax naa sanq ni mu doxalee ministère mu am ministre am secrétaire d'État mu ñëw ci autorail yi mu ne dafay taxawal ñaari société benn société bi mu ngi tudd chemin de fer du Sénégal ñu créé ko le 22 mai 2020 suñu xarit DG Kibili toure jiite ko ñooñu ñoo yore lépp li nga xam ne moom mooy patrimoine yi autorail ci Sénégal toftal ci société bii nga xam ne moom la ñu président de la république dënk président Macky Sall muy les grands trains du Sénégal nga xam ne ñun li ñu sant mooy fexe ba autoraay yi teguwaat ci ci yoon boobu lañu nekk ci yoon boobu lañu daje ak waa MNL Capital ba xaatim li nga xam ne wax naa ko sànq parce que ñoom dañoo ñëw pour jàppale ñu pour jàppale waa Kër Sëñ Touba pour que loolu président de la république bëgg nekk lu mën a nekk ndax boo génnee yeneen dëkk yi rek ñëw ba Touba maa ngi wax sànq ne màggal bi lu am solo la dama leen di jox rek ñaari firnde boroom xam-xam yi nekk ci économie nee nañ màggali Touba boo ko jëlee xëy na ci semaine wala ba weer dina indi ci xaalis sa économiste moo sama wet ci wàllu koom-koom lu mot deux cent cinquante milliards de francs loolu la économiste yi wax ma dem dégg keroog bi nga xamee ne am na jiyee ju am Kaolack boroom xam-xam itam bind loolu ñu ne bés bu set diggante ndakaaru ak Mali junney lu eh, jóge junney camion Mali ñooy daw diggante Mali ak Sénégal ñoom li ñuy indi ci koom-koom mu ngi toll ci deux cent cinquante ah kon nag xam ngeen ne ci at ci at màggal gi moom ay fan la deux cent cinquante milliards ñële nee nañ bon deux cent cinquante trois milliards lañ wax ci wàllu camion lañ xayma ay xayma la rek kon defe naa ne ginnaaw wàllu population màggal gi rek li muy am ci weer walla semaine indi ko ci xaalis mu ngi tolloo li camion yooyu di indi ci xaalis ci at mi kon nag wax dëgg yàlla dafay yoon ñu fexe ba économie bu ne lépp lu nit di yëngatu rek war na mën a xalaat Touba te màggal gi ñëpp xam nañ ne deux cent cinquante milliards yooyu ci ay pàcc la bi ci jiitu nag mooy dund gi alimentation ndax ñetti millions ngi nit nag fu ñu daje ah il faut ñu lekk il faut ñu naan. waaye ñetti million nit yi bala ñoo daje dañoo dugg am fu ñu dugg gis nañ ni ñii dañuy dugg avion ndax nag màggal gi taalibe yi fu ne lañuy ñuy jóge dinañ jóge États-Unis Espagne France Mauritanie fu ne la ñuy jóge dinañ dugg itam oto ndax tey fu ne la oto yi di jóge defe naa màggal bu jotee kenn du xëcc ci yoon dinañ dugg saret dinañ dugg moto dinañ dugg luñ mën a dugg dinañ ko dugg dinañ dox loolu mooy màggali Tuuba alors mais nag ci biir mbir mi am na lu ci manqué ndax bu géej amoon boor bi ma ne leen war nañoo dugg bato waaye raay am na bi waaye déggatu leen ñu ne ñu ngi dugg train di ñëw loolu taxaw na depuis 2019 te cinquante milliards yooyu nag autorail daf cee am wàll wàll bu am solo ndax otoraay ñépp xam nañ ni dafa am solo ci dëkk sëñ Cheikh Abdou Latif ko sànq biñ ma président tànnee teg ma foofu ñëw naa fii ba ci sëñ bi wu ek wan ko liñ ma dëng ak fiñ ci jëm ñu ñaanal ñu won ñu autorail bi ni mu amee solo dem naa ci señ Abdou Karim ñoom ñëpp ñu wax ma ci li ne li ci nekk kilifa diine yi ma dem yëpp koo ci gis dafay ne ah lii de moom dañ ci ñaan ndax autorail dafa amoon sori solo population askan bi ndax lan ndax autorail fu mu taxaw fu ne économie moo fay jub mooy lan mooy ñi nga xam ne dañuy yóbbu nit muy muy autorail yu Sénégal di bu France du feneen ak feneen autorail moom gaar bu mu taxaw rek économie juddu na ci njaay ak jëmm ci yóbbu nit ñi ci indi ay dëkkuwaay ci leneen ak leneen te boo jógee Ndakaaru nag ñëw Touba wala nga jógee Ndakaaru dem Tamba xam nañ ne raay bi wala autoraay bi li mu dawul am na dëkk yoo xam ne mën naa ne tax na presque ñu gën boobu nag président dégg ngeen ko fan yi daf ci bëgg a def deux mille milliards pour que ñu def genre xarale bu bees boo xam ne day dem fépp ci Sénégal waaye fi muy njëkkee mooy jóge Ndakaaru dem Kidira loolu itam nañ ko gisee ne mooy li am ci terre feneen rek xam nga réew da ngay sóoraale ñi ñëw ëllëg ba tax na loo fexewul heure bi ëllëg bu doon jar benn dina jar téeméer ndax sëñ Maodo Moustapha ba muy def raay bi dégg naa 1,3 franc la doon fay ouvrier te xam nga ne booba nag dégg naa 1 franc mënoon na jënd 17 kilos de riz xam nga ne loolu tey kuy defar raay ñaata nit nga fay fay ay millions. kon looloo tax président di def li muy def moo tax mu def terre bi moo tax itam muy def li nga xam ne mooy raay écartement boobu nga xam ne yu bees lay doon waaye yàqul dara ci lii nga xam ne moom lañu war a def muy defar raay yi nga xam ne yu métrique la pour mu mun ñoo indi Touba yóbbu ñu Tivaouane mën ñoo yóbbu fi nga xam ne moom mooy Tamba wala Kidira ci loolu nag ñu ngi leen di gën a tàllalaat loxo di wane ne daal mbir mi lu am solo la ci économie Sénégal lu am solo la ci création emploi lu am solo la ci indi koom-koom ci Touba am koom-koom ci biir réew mi lu am solo la ci askan wi kon kilifa yi ñu ngi talal suñu loxo pour que ngeen ñaanal président de la république mu réussir loolu ngeen ñaanal ñu ñu ko dënk ñu mën koo doxal ba nga xam ne raay bi dina dellu si waat Sénégal jëm kanam loolu laa amoon lu may wax di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sabil lisaani qawli janaani safi amani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu mbooloo mi di nuyu ñu fi teew ñëpp nuyu bi ak siyaar bi di si jiital sëriñ Mountakha Mbacké Bachir xalif général bu Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi lool di nuyu ak siyaar bu baax sëriñ Amadou Makhtar xalif dara bu bees ak waa wilaaya di ko teg ci loxo sëriñ Moustapha Massour mi nga xamante ni moo jox ko suñu teewaay sunu kàddu nag xam naa ni c'est waxtu bi dafa ñu dab day doon lu gàtt rek loo xam ne xam ni li fi jot boros ci wàllu raay bi jógee ci suñu bàyyi Serigne Lo jaar ci directeur général monsieur liñ ci dolli rek mooy ëllëgu raay bi ndax jàngat bi bi ñuy ci histoire ci taarix mooy dafa am ñaari bunt yoo xam ni moo war a raay bi xëy na sëñ moon Moustapha du xëy na sax ci lu wér bi muy song raay bi pas-pasu liggéey jumaa ji moo ko tax lu amoon naa dàmbale spiritualité ak jëfe ndigal boo xam ne dañ fi bàyyi képp moo tax mu liggéey ci raay bi dara leneen war a waaye bu ñu dégloo bu baax lii suñu bay sëriñ amoon na ay enjeux économiques yoo xam ni moom la ci tubaab bi laxas xëy lépp loo xam ni teg na ko ci kaw ci kanamu sëñ Modou mooy jafe-jafe du woon ci seen terrain bakkan wala ci lu leen neex lépp enjeu économique la woon pour pouvoir renflouer maanaam gën a feesal keesu gouverneur de l'Afrique occidentale ndax ceeb bi ñu doon jënd ndawal léegi lépp loo xam ne ñu ko doon fay am na loo xam ne di ko ci doon teg kon bu ñu demee quatre-vingt-dix ans après ñu gis ni raay bi dawatu saxaar si dawatu muy deux mille dix-neuf mu am loo xam ni ñun murit ñun waa Touba daf ñuy jaaxal jaaxal ci ñaari fànn mooy lu waral raay bi nga xamante ni yoonu murit daj na ci loo xam ni kenn mënu ko tudd te foo ko natt weesu na ko muy loo xam ne bu amul woon jumaa ji du taxaw te jumaa ji bu amul woon yoon bi du am kon laaj boobu moo indi lu bari loo xam ne tey jii ñu ngi koy dox ci chemin de fer bi ak ci projet bi ñu tuddee safar safar bu ñu ko waxee tuddee ko motoraay bi jógee njaareen yow Touba dafay doon baat boo xam ni dafay uy weer boo xam ni dafa am solo ci murit yi muy weer boo xam ne murit yëpp a ko yàkkamti muy weer boo xam ne murit yëpp a koy xaar muy weer boo xam ne bu ñëwee dafay indi mbégte boo xam ni ci murid yi moo tax ñu jàpp ni raay bu dawaatee dana ëmb màndarga yooyu yëpp moo tax ñu tuddee ko safar waaye bu ñu décidé ni faw ñu yeesalaat yeesalaat ko liggéeyaat ko dañuy fekk si ñaari poñ yi mu njëkkoon tudd muy enjeu économique ak enjeu spirituel ndax dañ koy wax ci suñu discours naan pour l'histoire pour le développement local bu doon histoire kese yeesalaat raay bi jar ko ndax liñ ci yoon bi daj waaye yamul ci histoire rek dafa fekkaat dëkk bi sell bi di Touba am taxawaay boo xam ni taxawaay bu am solo la ci économie Sénégal di dëkk boo xam ni ci village la jóge di màgg di màgg ak un taux boo xam ni daanaka amul fenn jóge ci cent mille ba fi mu toll nii ñu nga wax un million cinq cent d'habitants te bu ñu wax Touba deuxième ville économique du Sénégal dafay fekk ni ci wàllu consommation la ci wàllu consommation la mais aussi ci wàllu activité économique bu ñu ko basé sur suñu produit intérieur brut kon màggaay dëkk bi tey jii point de vue économique dafa dem ba laaj ji jii yeesalaat raay du ma ci soriwaat ndax le directeur général monsieur Ndiaye wax na ko euh, autorail mënta ñàkk ci dëkk buy màgg te bu ñu xoolee ni raay bi doon daf diggante Njaaréem ak Touba nga jël Nduloo Pataar Xur Mbàkke dëkk yooyu yëpp boo fa jaaree fi toll nii daanaka ñàkk nañ lu bari te waaye te li nu ñàkk dafa jël loo xam ne dafa ñëw fekk si dëkk bi di Touba dans un processus d'urbanisation assez anarchique ndax Touba kese buy màgg li ko wër yëpp dara jógu fa dañuy dem ba fi mu toll nii ñëpp ay gàddaay ñëw fekk si ñuy créer ay bidonville di créer ay zones yoo xam ne daanaka ay zones d' insécurité lay nekk parce que tout simplement amuñu un schéma de transport de masse boo xam ne dina mën a dénkilewaat dëkk yi ko wër te dina mën a permettre Touba mu mag kon bu ñu yàlla defalee tawfeex ñu nekk ci li ci liggéey am ci ndigalu Sëriñ Muntaxa euh, waxtaan ci am ci ndigal Sëriñ Amadou Maxtaar ak ñëpp yegg ci yoon bi ñu dox ba dajee état ci structure am à travers GTS ni ne li ngeen di def ak li ñuy def benn la ñu àndandoo kañ def ko kon dañuy sant yàlla suñu borom ndax ñi fi nekkaloon état ci jamono sëñ Modou Moustapha xëy na jafe yu bari la leen kon ñun bu ñu taxawee tey jii di liggéey ci lu mel ni état bi ni à travers GTS kaay ñu àndal ko kon dañuy jàpp ni am na tawfeex boo xam ni dañ koy sant yàlla suñu borom te seen teewaay fii yaakaar naa ni day firndeel day mandarga lu bari ci li nga xamante ni bëgg nañ ko def ci raay bi. te bis bu ne ñu ngi ciy def ay jéego ci dem safar nag buñ koy wax doon projet boo xam ni dañ ko porté ànd kook yoonu murit ànd kook secteur privé bi ndax ni ma koy waxee ku ci diine ak pas-pasu diine indi am nga ci wàll waaye ku ci économie ak koom indi am nga ci wàll te Touba tollu na foo xam ni ñuy murit ak ñu dul murit ñëpp dañ fiy daje ndax ñi fiy jaay ñi ëpp am na si ñoo xam ne du ñu murit Dakar la ñuy produire ñëw indi fi jaay fi kon ñooñu boo leen proposé des schémas yoo xam ne de transport yoo xam ni moo gën a jàppati lu mel ne raay dañuy jël kon intérêt bi du intérêt yoonu mu kese waaye intérêt képp ku ci Sénégal la jëm ci wàllu koom jëm ci wàllu économie mu fekk si waat ay enjeu social ak environnemental ndax gisam lu yàggul dara ak accident bi am Kaolack te ci national bi ñu koy gis saa su ne diggante camion yi dem ak di ñëw nga xam ne tey jii raay bi buy dawaat dina wàññi fréquence camion yi nga xamante ni ñu ngi ciy daw dina mën a dëkkilawaat dëkk yu bëri yi nga xam ni ci yoon te dina mën a permettre état bi li muy teg ci maintenance tali bi lu bari dana deñ ndax camion buy jaar ci tali bis bu ne daanaka da ko yàq wa ilaa ñu yeesal ko wa ilaa ñu bàyyi ko muy dëkk si di indi ay jéego loolu yëpp boo ko ëmbee muy lay gu mat sëkk cey jii ñu mën a yeesalaat autoraay bi diggante Njaaréem ak Touba te loolu ñu ngi si dox li mu mat ñaari at ak juróomi weer ci ndimbal yàlla suñu borom di doon loo xam ne ñu ànd ko partenaire technique muy China Railways ñu nekk ci ak ñëpp ñoo xam ne dañ ci xarañ ci wàllu autorail mu ñu fekk si ñu ànd ak GTS tey jii ci Touba waaye tamit ci yeneen dëkk yi nga xamante ni ñoom jekk nañ ba noppi lu mel ni ci waawal ak loo xam ni buñ ci noppee xam naa ni Touba gën a gën a gaaw kon foofu lañ toll ci liggéey bi nga xamante ni mooy yeesal raay bi muy yeesal boo xam ni gën a gaaw waaye sunu mbébét liggéey en phase ak li nga xamante ne mooy stratégie état ndax état xëy na bu ndawalee ba ci kanam ak chemin de fer du Sénégal dina jàll ci écartement standard boobaa tamit li muy laaj ci wàllu investissement ci diggante tout ñaaree ak Touba ñu mën ko ci def ligne métrique bi fi nekk sagam am nañu yéene yeesal ko incha allahu rabbi xam naa ne bu nu yàlla defaree tawfeex en relation ak GTS ci euh, ndigalu euh, secrétariat d' état au réseau ferroviaire ànd koog chemin de fer Sénégal bi nga xamante ni am nañ si cër kilifa yi yi nga xamante nii déjà fësal nañ ko lu mel ne mairie de Mbacké euh, ñu ngi koy nuyu au passage nañ na ne tey jii bu nu yàlla defaree tawfeex train bi dinañ ko yeesalaat ci nu mu gën a gaawee pour que tey jii mu doon sunub ndam mu doon loo xam ne dinañ si ji bi suñu béy suñu diggante seen Modou Moustapha li may tëjee rek mooy loo xam ni euh, dama ko gëm mooy sunu pas-pas yoonu murit yàlla ba mu dimbalee sunu. mu dëgër këcc ñu jàng ba dëgër ba xam ñooy kan xalif Sëñ Tuubaa yi fi jaar yëpp daanaka dimbale nu ci loolu ñu yombal nañu lu bari ci mbirum àdduna ndax Tuubaa gi ku fi dugg xam ne ab jàppandi wadd na fi ñuy toog di fàttali suñu jaar-jaari mag yi muy sëñ yoon Moustapha sëñ Fallu sëñ Abdou Lahad ak ñëpp ñoo xam ne jaar nañ ci yoon bi mënatul wala amatul droit di yem ci di ko nettali mooy baat bi may wax ci français naan histoire maanaam repère la pour ñu xam ñooy kan waaye boo ci yamee di bàkku ak di triompher mooy bàkku ak triompher boo xam ne sëb boo bëri ndax kuy bàkku te sëb boo bëri xanaa victoire keneen ngay célébrer kon suñu génération ñu ni murit ci ginnaaw bi ñu xamee ñi nga xamante ni yoon bi daj na ko ci ci raay bi ak ci leneen ak leneen mu leer si suñu bopp taarix indi na ko gëstu nañ ko ba xam ni suñuy maam suñuy wayjur ak suñuy sëriñ daj nañ lu ne lu ko yoonu murid taxaw suñu góorgóorlu ak suñu jaayante mooy fa ñu taxawoon ñu yokk ci saa xam ne dana am solo lool ba yeesalaat ko bu gënul du yees loolu mooy suñu jaayante ñu gëm ko ñu jàpp ni foofu la ñu war a taxaw ndax bu ñu ci taxawul rek suñuy doom dinañ ñëw ñu laaj ñu seen i bàyyi lu ñu doon def ñu ni dañ fi nekkoon doon nettali li suñu maam daf ci lu baax ak ci lu xarañ yàlla na ci yàlla musal kon ñu ngi sant bu baax a baax xëy na jotaay na fi gën gaaw te dana gën a yaatu incha allahu rabbi ndax lii jàpp naa ni daje bu njëkk la maa ngi koy wax dëgg Baye Serigne ko li ngeen wax ci taarix doyalul waaye dinañ am jotaay yoo xam ni incha allahu rabbi danañ ci gën a xuusaat ba nit ñi xam tey jii projet bi fu ñu ci toll ci wàllu financement ñu ngi toll pratiquement six cent quarante milliards pratiquement si euh, coût du projet TEDES ci emploi yi ni créé ci jaar ci fi muy jaar nombre de gares yi loolu yëpp incha allahu rabbi mu yàlla may tawféex ak kattan dinañ ko gën a yàggalaat euh, te ñu ngi ñaan yàlla suñu borom li ñu bébét ci diir bu mu gën a gaawee ñu mën ko matérialiser ba ku nekk xam ni lan doon wax teg nañ ci suñu baaraam ci ndimbal yàlla suñu borom ak tawfeexu Cheikhul Khadim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah Rafah TV une de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer